revenir sur l'incursion de la de la France. waaw xam euh, nga man damay wax li nga xam ne nii tamit moo amal solo pour man ci laay gën a yàgg naa ci ñëw sénégalais yi économie bi fan la ñu war a jëmee a France xam nga comme Macky Sall waxu ko ci discours bi on parle du discours man dama naan est-ce que war naa consacrer kat mais comme loolu nga bëgg yaay borom émission bi euh, du ma ci sori. Euh, amul dara lu ci du ma ci sori xam a lu tax. Mhm. parce que moi je ne raisonne pas en termes de on a dit surtout en matière diplomatique. je ne raisonne pas c'est journal crédible qui donne l'information mais on a dit le xam nga le journal Adama Barrow Adama Barrow qui est un voisin le président de la Guinée mais recevoir na fii Sonko xam nga lii lu ah, factuel la avec la bénédiction ah, xam nga avec la bénédiction du voilà quoi Mbalo plutôt recevoir na fii Sonko avec nga pour man ñàkk a xam politique rek mooy tax ñuy émouvoir ci yenn yi mais Ousmane Sonko soo bëggee ma wax ci ñoom ak waa Pastef dañ doon émouvoir que ne Macky Sall serait le sous-préfet de la France de Macron. Mm-hmm. mais ñoom dañ ne Macky mooy sous-préfet Macron mais nga ne nga ne ki mu recevoir kan la sax. Euh, la seconde. Euh, de la cellule Afrique. Ouais, de l' lay occupé. Euh, elle waa adjoint ah waaw maanaam ban fonction. bon je sais pas. waaw xam nga Sonko. Ah, seconde élite non la c' non. cellule Afrique c' est elle de la cellule Afrique de l' Élysée. waaw léegi cellule Afrique elle fut directrice donc chef de division ou chef de département chef de division la rek. parce que Élysée secrétaire général moo ko jiite. waaw mais c'est comme nga comme nga ne chef division département Europe bu ministère affaires étrangères. waaw donc c' est à dire que il faut aussi xam nga xam nga ce qui est dramatique mooy ñoom. dañuy dañuy jaay seen politique o Sénégalais en partant d'éléments symboliques mais chaque jour qui passe bés bu nekk ñoom li ñu yàbbi woon dañ koy wanaat ah loolu moom ma tiital ci Sonko looloo tax ma ne c'est un aventurier <laughs> bés bu nekk Sonko Sonko bi mu demee Ziguinchor bi ñu ko falee ki njëkk a recevoir c'est un conseil municipal d'une mairie du Havre ab tubaab bu xonk coy ñenn ñi sax conseiller boobu maa ngi dégg ñu ne moom conseil municipal au Havre mbirum góor jigéen moo fay liggéeyam loolu dafay fay toppatoo non comme dañuy wax ne lu ñu dégg photo yi circulé na photo yi circulé na wax c'est factuel. sans aucune preuve aussi. non kooku il s'occupe de la commission genre xam nga mbirum mbirum genre euh, xam nga waaye égalité genre LGBT genre yooyu loolu lay toppatoo mairie Havre. ñun on a un ministère du genre yaa ngi dégg yaa ngi dégg yaa ngi dégg Havre. ñoom dimension bi ñu ci def nangu ngeen ni léegi ministère genre ñun suñu ministère kenn defu ci LGBT. non dangereux suñu ministère. sama baat le genre c'est pas l'homosexualité. Eh ñoom je termine ah. j'insiste. on l'a même supprimé et j'assume. déjà ñun lan lañ supprimé. amatul ah. ministère genre man maa am kàddu bàyyi ma yeggali. ministère genre waxtaan bi bu la arrangé wul rek nga def ay incursion. non mais léegi ñun déjà suñu baat ca kaw. ñun dañoo jël ay dispositions légales jël loi ne lépp luy mbirum góor jigéen dañu lay tëj duñ ko xamee. ah bon oui. foofu ñu ko bind. ah mun ci suñu loi de. ban acte contre nature góor jigéen mooy lan. dama lire nga lire nga la. Amadou sur la procréation. Amadou c'est mon ah, interprétation. may ko acte contre nature ñaata yoon lañ fi dégg tribunal ñu ne fekk nañ ñaari xale yu góor. ñuy def acte contre nature yóbbu leen tëj leen. ñu ci ëpp sursis la ñuy am. waa jooju Ousmane Sonko recevoir oon te mu nekk ab conseiller municipal. te benn mairie Havre moom la njëkk a revoir recevoir. ñu nga am sa temps de réponse. tu de choses yoo xam ne mais dama lay bàyyi nga déglu. politique mu de da koy wax c'est une affaire de gentleman. ok non c'est une affaire de gentleman je ne vais pas reprendre la. Euh, l'assertion du grand il faut souffrir j'aime pas ça affaire la. allez ah, donc oh, Ousmane Sonko du kenn ku ñu jiiñ ne moom góor jigéen ya nekk ca mairie Havre lay toppatoo moom la Ousmane Sonko njëkk a bu ñu toogee tey benn équivalent wu sous chef de service Élysée ñu ne moom moo ñëw Ousmane Sonko recevoir ko Ousmane Sonko mi doon wax ne Macky Sall préfet de Macron la mais kon Macky Sall xanaa surgasu surgasu Macron la. c'est honteux gis nga un homme politique dangay am une ligne constante une ligne continue Sonko moo fi waxoon média France yi du ma mës a toog di wax ak ñoom dégg naa sax am na ñu wax ne dañoo fay xaalis sax pour que def émission tv cinq ak RFI. c'est grave dégg naa oui parce que am na benn socialiste bu mag bu nekk sax fële France nee na moom sax liggéey na ci. jàpp na ci xam nañu relation presse yi nu muy fa dégg na am na ñoo dégg naa dégg naa ñuy wax loolu ah, xaw ma yàlla rek xam bien sûr donc vous êtes un ndax yow bi ñu la laajee sànq ñu terminer rek ba xam sa leader sa leader Amadou Ba <laughs> la laajee sànq ba xam sa leader dafa recevoir le gars de l'Élysée tu n'étais même pas capable de dire oui ou non ça veut naa sax yow amoo ko ci mooy li ma la doon wax ci benn émission xam nga day nañ yenn émission ma ne la Amadou mbuggu moon dugg ci yenn détail mais dinaa la wax la Amadou. waaw ma ko wax dëgg yàlla li ma metti dañ laa jàpp tëj la ci manifestation. te yow Sonko li nga fa sonn li nga fa nekk yëpp tu es à la périphérie du parti bu parti bi nekkoon armée doo sax général ndeysaan dañ cee teg ñaari weer ñu nome la ci ci structure boobu quoi vraiment j'étais content pour toi parce que sag la. alors ce ce leader. ñu ne recevoir mais pas de caractérisation. ce leader non je termine. Euh, ce leader. ce leader il est membre du cabinet du président Sonko. je l'ai dit c'est deux mois après notre débat qu'il a été nommé. j'avais décrié en son temps qu'il n'occupait aucune fonction je me réjouis. objectivement c'est un homme de qualité. c'est un homme de valeur c'est un intellectuel il est engagé pour ce parti. ce qui était paradoxal c'est que avant ce débat là. il n'avait aucune responsabilité. À part être mais, mais, mais, euh, réduit euh, en euh, rien sa qualité de militant. Non, mais c'est grave. Il était militant. Euh, aucune responsabilité. Alors, c'est le paradoxe. Maintenant, ma yegg li parce que bëgguma woon. non sérieusement moi j'ai beaucoup de respect pour Amadou. non mais et il y avait une injustice. que Ousmane Sonko a enfin réparé. le, le vous parlez d'un parti politique. vous parlez pas je dis je, continue c'est important. parce que amul salaire amul salaire y' a pas de euh, salaire dans le parti. Amadou ñu ne sa leader dafa recevoir un sous-secrétaire d'un sous-service munoo cee tontu. comment ça mënoo cee tontu. mais tontu woo ci posé nañ la bi tontu ci. mais c' est pas possible. vous pensez que ah, ñun ah, Amadou xaaral ba ah, non tontu ci donc. ça veut dire que tu pas informé. kon yow mii li nga xamul mbala li nga mënul tontu du maa ciy tontu man li ma ciy tontu mooy ne Ousmane Sonko lépp lu mu yëyoon rek yàbbi na ko. ah bon sur le franc CFA qu'est-ce qu'il avait dit. Euh, ba tey maa ngi koy déglu. sur le franc CFA. maa ngi koy déglu mais du yaay mën a débat xam nga man xam naa euh, seen technique de débat lépp lu mu yeyoon Ousmane Sonko moo ñëw débaptiser les villes de Ziguinchor turu tubaab yépp mu teggi ko. waaw ki recevoir c'est pas coopération décentralisée yooyu c'est pas une ville du Burkina. c'est pas une ville du Maroc c'est pas une ville de la Tunisie c'est pas une ville de l'Égypte c'est pas c'est pas une ville d'Afrique du Sud. xam nga coopération décentralisée. xam nga ñan la jot a recevoir Amadou s'il vous plaît. un conseiller municipal du Havre. mairie la Havre koo xam ne nii nee nañ liggéeyam toppatoo mbirum góor jigéen yi la. Ousmane Sonko moo woon wax fii ne. et vous